الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رضينا بالله ربا وسلام على محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله مع إطلالة السنة الميلادية الجديدة كل عام ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كل عام ونحن نشهد أن عيسى ابن مريم عليه السلام رسول الله وأنه عبده وكلمته إلى مريم وروح منه وأنه لم يولد في ديسمبر ولا في يناير ولا في فصل الشتاء بنص القرآن والإنجيل وأنه ما مات وما قتل وما صلب وأنه سينزل في آخر الزمان كما في صحيح السنة فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw ba nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokk yi ci at bu bees bu teru bi ci bépp at bu bees bu teru ci kaw jullit li mu ci war a gëm fas ko mooy kullu aamin wa nahnu nashhadu annahu la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah at bu nekk bés bu nekk waxtu wu nekk minute bu nekk seconde bu nekk liñ ci war a fas ñun jullit mooy nu seede te wóolu te gëm te dëggal amul benn buur bu ñuy jaamu ci kaw suuf si ci keppaaru asamaan gi bu dul yàlla tabaraka wa taala nuy seede di wóolu di gëm di dëggal ne moo yónni ndawam loolu tudd muhammad sallallahu alayhi wa sallam kullu amin wa nahnu nashhadu anna isa ibnu maryam rasulullah at bu nekk danañ dëggal ne yonent boobu tudd isa di doomi maryam ndawal yàlla la wa annahu abdu jaamam la ay baat la yu yàlla sànni ci maryam ruubu bàyyeekoo ci borom bi jëm ci moom nuy seede ne isa judduwul décembre judduwul janvier judduwul ci jamono tàngaay yi loolu alquran moo ko wax ak injil nuy seede ne moom isa alayhi salaam at bu nekk wa annahu ma maata wa ma qutila rey nu ko te faatuwul te kenn christifié wu ko mooy kenn daaju ko moom isa ñuy seede di wóolu di gëm di dëggal ne at bu nekk moom isa dana wàcc mujjantalu jamono comme ni mu nekkee ci hadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sababu wàccam nag lan la moom isa mooy mooy rey dajjal moom mooy damm salib bi bant boobu ñu daaj ne ci lañ ko def di ko fu nekk ñu koy takk fu nekk ñu dugal ko fa bant boobu li tax muy ñëw dafa bokk ci li koy damm si di koy toj bokk na ci li tax muy wàcc mooy mbaam xuux yi lay rey ba mu jeex tàkk jële leen ci suuf bokk na li tax ci muy wàcc wa yaxkumu bi shariati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokk na li tax yàlla di ko wàccawaat mooy day atteloo jullit yi ci sharia mu ne su boobaa jullit ñëpp dina ko topp yattabiuhu almuslimun jullit ñëpp a koy topp min mashaariqi al ard ila magharibiha ci penku suuf ak sow alal dana bëri ca waxtoom dëkk yëpp danañ nekk ci kóolute ak sécurité ak jàmm ak dal ñépp dañ leen jébbulu ci borom bi tabaraka wa taala moom isa su jamono yooyu fa innahu la yaqbalu min annaas illa al islaam aw sayf su boobaa moom isa la muy nangu ca nit ña ñu cay dund mooy lislaam kese wala jaasi dagg sa bopp amul beneen diine bu muy nangu islaam wala jaasi summa yamkusu fil ard ma sha allah su loolu wéyee mu sax ci kaw suuf ci coobare yàlla ca la ko neex moom yàlla mu doog a faatu summa yamuut mu daal di faatu génn àdduna luy xew bu faatoo wa yusalli alayhi almuslimuun wa yudfanuuna jullit ñi jullee ko suul ko comme ni ñuy def jullit yi lii nu wax at bu nekk dañ ko war a seede mbokk jullit yi mu ne ginnaaw li kullu am at bu nekk nashhadu anna allaha fardu samad lam yattaxid saahiba wala walad wa lam yakun lahu walad at bu nekk danoo war a seede weer wu nekk danoo war a seede semaine bu nekk danoo war a seede bés bu nekk minute bu nekk waxtu wu nekk danoo war a seede ne yàlla tabaraka wa taala kenn la fardun samad lam yattaxiz saahiba wa lam yakun lahu walad danoo war a gëm ne yàlla kenn la moom yàlla moomu lañ jublal mbir yi moom yàlla moomu amul dendandoo amul soxna moom yàlla moomu amul doom loolu jamono bu nekk dañ ko war a seede wa kullu am wa nahnu nashhadu anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam lam yuhanni'u an-nasara wala alyahud bi ayaadihim wa annahu amara li muxaalafatihim at bu nekk mbokk yi danoo war a seede ne moom yonent yàlla muhammad mësta ndokkeel nasaraan mësta ndokkeel yahuud ci seen diine moom yonent bu dee mooy sunu royukaay bu dee moom la nu gëm bu dee moom la nu bëgg li nu sunu dina sant mooy moom muhammad moomu sallallahu alayhi wa sallam lam yuhanni in nasara wala alyahud musul ndokkeel ab nasaraan wala mu ndokkeel ab nahud yahud xëy naan ko bonne année fekkeel déwén yal na yàlla barkeel sa at bii yal na nga nangam yal na nga nangam yonent yàlla muhammad mus ko def sallallahu alayhi wa sallam defu ko ci seeni feet te li mu santaane mooy wuute leen ak ñoom kullu amin ayuha al ahbab wa diinuna yaamuruna bil birri wal ihsani wal muamala al hasana li gayri al muslimin wa an nusharikahum fi mana munasabatihim الاجتماعية دون الدينية من الزواج والطلاق وموت ومرض ونجاح at bu nekk bu bees bu teru ñun jullit dañ cee war a seede ne sunu diine lim nu sant mooy ñu daal di baax ñu mokk mbaax rafetal jëflante bu rafet ci keneen ku dul jullit loolu lañ suñ diina sant mooy nun jullit danoo war a baax danoo war a tabe dañoo war a lewet dañoo war a rafetal ci keneen ku dul jullit dañoo war a jëflanteeg ñoom ci seeni xew-xew yu àdduna bàyyi seen xew-xewu diine danoo war a jëflanteeg ñoom ci seeni programme dund bàyyi seen programme diine lan lañ war a jëflanteeg ñoom ci céet ziwaaj ci tas talaaq ci dee ci feebar ci am dara réussir ci loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu ko sant bu nu amee ngénte bu nu woowee bu nu mënee dem dem bu nu mënta dem nu joxe ngànt suñu amee dëj dem jaale ji leen waaye dafa am ay charte ca jaale ja foo war a yem ak loo war a wax waaw suñu feebaree nga seeti leen loolu jëflante la suñ la yëkkalee nga lekk suñ la joxee loo xam ne sa diine nangu na ko ci li nga war a jëfandikoo ci sa wàllu àdduna nga jël ko lii fii lan war a yem ndax ci wàllu jëflante àdduna lii lan nu sant amma seen mbirum diine suñu yoon nekku ci jàng nañ ba sonn lakum diinukum waliya diin jàng nañ ba sonn inna diin inda allah al islam wa kullu am ayuha al ahbab at bu nekk wa diinuna yuharrimu alayna naatadi ala gayri al muslim aw nazlimu aw nabxasu xaqa aw nahtaqiru aw nuhanni'uhu aw nuwajihu ilayhi ila ayi isha'a bi ayi shaklin li annahu ala gayri diinina at bu nekk waxtu bu nekk bés bu nekk semaine bu nekk minute bu nekk seconde bu nekk lan ñu ca sant mooy sunu diine dafa araamal ci ñun ñuy tooñ ku dul jullit ñuy jalgate ay àqam moo xam dañ koo tooñ moo xam dañoo ay àqam yi mu am dañ cee teggi dara wala dañ koo xeeb wala dañ koo tuutil ci mboolem façon nag anamin yi loolu sunu diine moo nu ko tere tooñ ku dul jullit wala fell ci àqam lenn loo xam ne moom moo ko moom wa kullu amin wa nahnu nudiinu lillahi taala wa anna alwala walmahabba wannusrata takunu lillahi wa lirasulihi wa lilmuminin mbokk yi at bu nekk bu bees bu teru ni bii teroo li ñu sunu diina sant mooy nu yëg ne danoo war a far danoo war a am péete bokk na nag tey li lor jullit yi mooy xamunu fu nu far jullit yi fépp lan bokk su yahud yi wootee ñoom ñooy jiitu su nasaraan yi wootee ñooy jiitu su musrikuun yi wootee ñooy jiitu ñii dund bidaa bu ñu wootee ñooy jiitu animiste yi bu ñu wootee nooy jiitu ñun xamatunu fu nu bokk looloo nu sonal da ngay dégg ku ne man de ñépp laa amal jàmm man de man ñépp samay mbokk lañ loolu mënu nekk jullit dafa war a am fu mu war a far al wala wal bara loolu Ibrahima jàngal nañu ko bi ko yàlla yónnee moom Ibrahima mu ñëw war a woote charte yi mu tëral mooy benn kese la ngeen ñëw ànd ak man ci tawxiid ñu kennal yàlla wala ngeen nekk samay noon loolu mooy déclaration yonent yàlla Ibrahima charte bi mooy ngeen ñëw ñu ànd wéetal yàlla su ngeen ko mënul samay noon ngeen yàlla nettali ñu ko mu ne wa bada baynana wa baynakumul adawata wal baxda ila mata charte bi mooy lan hatta tu'minu billahi wahda su ngeen ko deful rek nooneel ak mbañeel mooy nekk suñu diggante ba ngeen kennal yàlla jullit dafa war a am fu mu far al wala fan la ci yàlla ak ab yonentam nga war a faral laa tajidu qawman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwaaduna man hada allah wa rasulah walau kana aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw asiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu yàlla nee na doo fekk mukk ku gëm yàlla bëgg yonent bi di farak ku gëmul yàlla doo ko fekk tey rek nga koy fekk ci dëkk bi tey ku gëmul yàlla am juróom fukki junni te xarit yoo xam ne gëmunu yàlla bëggunu yonent bi kullu sana nashhadu anna al wala wal mahabba wan nusra takunu liman lillah at bu nekk danoo war a seede gëm dëggal ne far ak bëgg al mahabba bëgg yàlla qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni su fekkee li ngeen di wax dëgg la ne yéen jullit yi bëgg ngeen yàlla li koy leeral mooy lan ngeen topp ma man muhammad wa nusra ak ndimbal loolu takunu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin jullit mbir yii yépp yàllaa ko moom ak yonent ak jullit yi far bëgg ndimbal yàllaa ko moom ak yonentam ak jullit yi waroo ko defal keneen ku dul ñooñu waaye wa anna al bara wal bughd wal adawa lil kafirina ala ixtilaafi sharaa'ihim fekkee am na koo war a bañ su fekkee am na ku war a nekk sa noon su fekkee am na koo war a sori mooy yéeféeri ak seeni façon ñoom ñëpp ak kuréel bu ñu mën a bokk képp ku taxaw sa kanam ñu ne la ki ab yéeféer la li war ci yow mooy nga bañ a far ak moom nga bañ a soppante ak moom nga bañ a dimbalante ak moom wa fi kulli am ayyuhal ahbab ci at bu nekk nahnu nashhadu wa na'taqidu wa nu'min bima jaa fi sahih ala lisani sadiqi almasduq sallallahu alayhi wa sallam at bu nekk weer wu nekk semaine bu nekk bés bu nekk waxtu wu nekk minute bu nekk seconde bu nekk da ngaa war a gëm am pas-pas bu wér nga gëm li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko te mu nekk ci saxiix moom yonent mu wax ko lan la wax nee na walladi nafsu muhammadin bi yadi laa yasmacu bi ahad min hadihi al umma yahudiyun wala nasarani summa yamut walam yumin bi billadi ursiltu bihi illa kaana min ashaabi nnar sallallahu alayhi wa sallam ne giñ naa ci ki nga xam ne man muhammad sama bakkan bi ci loxoom la nekk ko kan la yàlla moo tax gis nga ñi ñiy waat waat di waat ci leneen lu dul yàlla moo ngi nii yonent bi lu tax waatul ci ibrahim lu tax waxul giñ naa ci ibrahima pourtant ibrahima yor na yor na yor na martaba boobu ibrahima yor na martaba bu ñuy waate ci moom lu tax inna ibrahima kaana umma soo boolee adduna bi yëpp seen ngëm yàlla nga teg ko ci blanche adduna bi yëpp laa wax de waxuma waa sénégal adduna bi yëpp nga teg seen ngëm yàlla ci balance soo tegee ci ibrahima ibrahima daaneel leen fil iman inna ibrahima kaana umma moom kese nation la ci ngëm yàlla waaw lu tax yonent bi waatul ci moom bàyyil ibrahima jëlal jibril lu tax yonent bi waxul maa ngi giñ ci jibril jibril am na maxaama bi di zi quwatin inda dil arsh makinin mutain thamma amin waaye yonent bi waatul ci ñoom ñaar ñëpp kan la wax kan la waat parce que waat jaamu yàlla la ci islam ci sharia dafa am ñu ñuy woowee al abadala ñeent lañ abdullah lañ tudd soo ko defee jamu groupe mu nekk al abadala abdallah ibnu abbas abdallah ibnu mas'ud abdallah ibnu umar abdallah ibnu amr ñoom ñeent ñi ñooy al abadala fiqu islam ñii ñoo ci mën moo tax ñu tuddee leen ko bu ñu la waxee al abadala mooy ñeent ñi ñoo mën ci fiq borom téere yëpp ci ñii lañ génnee ñii ñoo leen jàngal fiq ñii ñoom ñeent lan lañ wax ñu ne nga waat ci yàlla nga fen moo gën nga waat ci nit nga wax dëgg déggu leen lu ma wax de nga waat ci yàlla fekk da ngay fen moo gën nga waat ci nit nga wax dëgg ñu ne waaw yéen doy li ngeen wax doy na waar de ñu ne waaw dañ koy leeral ñun ñeent ñu ne boo waatee ci nit nga fen da ngaa fen yàlla day baale fen inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maa duna zalika liman yasha fen ci maa duna zalika la bokk kon nit mun na f- waat ci yàlla mu fen yàlla baal ko ñu ne waaye boo waatee ci nit nga wax dëgg da ngaa bokkaale te yàlla du baale bokkaale innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna moo tax yonente bi bu muy waat mu ne wallazi nafsu muhammadin bi yadi giñ naa ci ki nga xam ne bakkanu muhammad ci loxoom la nekk même yaay Aïcha xam na ne waruñoo waat ci yonent bi yaay Aïcha da daan mere yonent bi comme jigéen nu muy mere borom këram yonent bi moo xam Aïcha ba ne Aïcha su meree sax xam naa ko ñu ne yonent Aïcha su meree nu muy def mu ne sama tur bi lay bàyyi suy waat danaan wa rabbu Ibrahim gis nga même jigéen jooju xam na ne waruñoo waat ci nit yonent bi nee na saa yu ma xëyee dégg Aïcha mu ne wa rabbu Ibrahim dama naan ah sama sama soxna si tey de am na lu xew xaaral ma jege ko ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam nuroowul ak nun nga dégg mu commencé di ko neexal naan ko yaa Aïch xam nga Aïcha la tudd mais day neexal tur bi yaa Aïch ndax xol bi féex sallallahu alayhi wa sallam lépp la jàngalee اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله سنو يننت صلى الله عليه وسلم مني maa ngi giñ ci ki nga xam ne sama bakkan bi ci loxoom la nekk mu ne laa yasmau bi ahadun min hadihi l umma xeet wii kenn du ci nekk di ma dégg man yonent bi di dégg ne yàlla yónni na ma di dégg ne maa yonent bu mujj ci xeet wii nga nekk yahud wala nga nekk nasaraan nga dee bañ maa gëm lu dul ne safara nga jëm laa yumin bii du ma gëm mukk aw laa yasmau bii du ma dégg mukk ahadun min hasil umma kenn ci xeet wii nga nekk tey ci àddina nekk fii ci xeet wii nga nekk yahud wala nga nekk nasaraan summa lam yumin bi yamuutu wa lam yumin bi mu faatu gëmuma man muhammad gëmul lii ma indi yonent bi nee na illaa kaana min ashaabin naar allahu akbar léegi bu yon bu yonent bi waxee li yahud ak nasaraan su ngeen deewee li ma indi gëmu leen ko safara ngeen jëm kon ku nekk jullit te gëmoo li muhammad indi nag jàngat leen li mbir mi bu leen ko yemale ci yahud yi ak nasaraan yi yemale leen ko ci jullit yi nga xam ne li muhammad indi gëmunu ko su yonent waxee yahudi ak nasaraani suñu faatoo li ma indi gëmuñu ko safara lañ jëm kon ñun jullit yi gëmul li muhammad indi nag buñ dee kon ñun fuñ jëm loolu laaj la point d'interrogation bi nañ ko bàyyi foofu kul amin ayuha al ahbab wa nahnu nad'u kullu rak'atin min salatina fi fatihatil kitab ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina anamta alayhim gayril magduub alayhim wala daalliin mbokk yi at bu nekk weer wu nekk semaine bu nekk bés bu nekk noo ngi julli noo ngi jàng ci sunuy julli ci rakkaa yi ihdina siraat al mustaqim yow yàlla yal nag ñu teg ci yoon wu jub wi nga teggil ñu yoonu siraat alladina anamta alayhim gayri almaxdub alayhim wala daalin rakka bu nekk danañ ko jàng danañ ko jàng suba ñaari yoon tisbaar ñeent muy ñaata juróom benn ñu jàng ko takkusaan ñeent muy ñaat ñu jàng ko timis ñett muy ñaat ñu jàng ko gee ñeent muy ñaat loolu lépp nu taxaw ci kanam yàlla naan ihdina sirat al mustaqim teg ñu ci yoon bu jub bi nga moytuloo ñu yoonu gaa yi nga mere ak ñu réer ñi ñan la yàlla mere al yahud ñan ñooy ñi réer an nasara kullu amin ayuha al ahbab wa nahnu natabarra ila allahi jalla wa ala min kulli man yuaadi awliyaah wa yuwaali a'daah wa yastahillu dima wal arad at bu nekk at bu nekk weer wu nekk semaine bu nekk bés bu nekk nun noo ngi seede ci yàlla di deñ di weddi di sori képp koo xam ne da nga noonoo ak jullit yi da nga leen a bañ da nga noonoo ak xariti yàlla yi da nga far ak nooni yàlla yi nun danan la weddi danan la sori loolu dañ koy seedeel yàlla tabaraka wa taala képp koo xam ne da ngaa far ak yéeféer yi ñii màbb lislaam nga ànd ak noonu ñun weddi nan la képp koo xam ne da ngaa daganal deretu jullit yi di leen rey di leen tëj di leen dóor di leen mbugal noo ngi seede ci waxtu bu tedd bi ci heure juma ji nga xam ne yàlla day nangu ñaan noo ngi seede sunu borom ne yow yow moomu nun dañ nañ ci yow képp kuy daganal deretu jullit yi képp kuy mbugal jullit yi képp ku leen di tëj képp ku leen di rey nun xeetu sayduna muhammad alayhi salatu wasalaam dañ nañ ci yow ixwaani haza diinuna lii mooy sunu diine haza diinuna wa tilka aqidatuna lii mooy sunu diine lële li doon wax sànq mooy sunu pas-pas ku fasul lii sa pas-pas wérut lii mooy sunu diine mooy diine lislaam mooy diine ji yàlla wàcce téere bu tudd alquran mooy diine bi yàlla wàcce tudd yónnee yonent bu tudd muhammad mooy diine bi tax yàlla tabax lu kaaba gi ne malaaka yi nañ ko tabaxal kaaba gi lii moo tax yàlla ne nu nan jublu foofu lii mooy sunu diine haza diinuna wa tilka aqidatuna pas-pas bee ñu doon wax wa kullu am loolooy sunu pas-pas allati nulinuha loolu nag nëbbunu ko dañ koy leeral ci kaw mu ne fang ndax loolu la nu gëm haza diinuna wa tilka aqidatuna allati nu'linuha wala naxjal minha duñ ci am kersa duñ ci am complexe dañuy am fierté di dox ci mbedd yi di dox ci boulevard yi di yëkkati sunuy bopp di yëkkati sunuy dënn di wax ne ñun ay jullit lañu duñ ci am complexe yar sunuy sikkim gàttal sunuy yére di roy Seydina Muhammad dun ci am benn complexe ndax nun ay jullit lanu hada diinuna wa tilka aqidatuna nulinuha sarahatan wala naxjal minha shay dañ koy leeral ba mu leer wa nadu llaha bi rahmati an yuhiyana alayha wa yaqbidana alayha wa yaxshurna alayha nuy ñaan yàlla jalla jalaalu ci heure bu màgg bi ci bis bu tedd bi di bisu àjjuma moom yàlla mu subhanahu wa taala yàlla na nu yërëm ci loolu yàlla na nu dundal ci loolu yàlla na nu rey ci loolu yàlla na nu dekkil ci loolu ñuy ñaan yàlla jalla jalaalu wa azza kamaalu mu dundal ñu ci lii rey ñu ci lii dekkil ñu ci lii ba keroog ñuy dajeeg moom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu allahuma اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين musidɓe fulɓe caggal yettude allah e julde e nelaɗo men muhammadun sallllahu alayhi wa sallam khutba men hande wonno wa kullu amin oɗon andi oɗo saaha mo wonɗen wonɗen koye hitande hesere nden hitande hesere enen holko foti wonde hen enen aqida men holko fiɓaten e ɓerɗe men e nde ɗo hitande wiɗen eɗen seedi allah o ko gooto muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko allah nelimo eɗen gomɗini e nde ɗo hitande isa ibnu mariam o wona ɓinguel allah ko nelaɗo allah ko maccuɗo allah eɗen gondine e ndeɗo hitande no on isa o jibinaka e décembre o jibinaka e janvier o jibinaka e saaha nangue saaha nguleyki o jibinaka hen eɗen gondini e nde hitande hesere on isa o mayani o waraka o ñiɓaka e leɗɗe e pontoje e leɗɗe o waɗaka noon eɗen seedi on isa allahu subhanahu wa taala ma tellin mo o ara o wara dajjal o hele leggal ngal ɓe mbino ko hen ɓe piŋimo ngal o wara mbabba tugeji ɗi fof kanko isa o adda jawdi heewa e leydi ndi kanko isa o ñaawa juulɓe e sharia islam eɗen seedi e nde hitaande hesere allahu subhanahu wa taala ko gooto o alaa debbo o alaa ɓinngel o alaa dendiɗiiɗo jalla jalaluhu wa azza kamalu eɗen seedi e nde ɗo hitaande allahu subhanahu wa taala ko gooto fardu samad lam yattahi sahiba wala walad jalla jalaluhu eɗen seedi allah ko gooto o alaa ɓinngel o alaa jom suudu o jibinaani hay gooto kanko allah subhanahu wa taala haasa o jombi ɗum kanko o waɗata ɗum eɗen seedi e nde hisande hesere woni juulɗo somo yiɗa walla omo renda walla omo walla ko allah jeyi ɗum e nelaɗo e juulɓe ɗum ɗon wonno toɓɓe wonno toɓɓe hande khutba men eɗen duwo allahu subhanahu wa taala o holla en goonga o walla en ndewen goonga o allah holla en meere o walla en wappen meere nde rewen mo kanko allah allahumma arina alhaqa haqan warzuqna ittiba'ah wa arina albaa الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم لا تجعلنا جبنا فندأف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله